Fadia seet ci Mouhamed Fadia Shop dañuy daal di dem léegi seetaan élément bi ñëwaat tout de salaamaaleykum mbokk téléspectateur te ñëw ngi fii ci Fadia Shop ñu gën ko xam ci wàllu jaay habillement parfum. montre chemise surtout nag ci décembre bi nga xamante ne dama leen andil ay chemise yoo xamante ne amul fenn am na ay bisik am na marque Giant am na Hector am na Gauche chemise yoo xamante ni fii rek nga ko mën a amee ci Fadia Shop même bu dee da ngay bëgg ensemble gilet mi ngi nii am nañ ko Fadia Shop chemise yaa ngi nii veste sport andi naa ci loo xamante ni doy na waar sama gars fii lay xewee ci Fadia Shop ci décembre tendance kese la nee naa leen ci tendance rek laay dox ak mode même vert vert de soleil boo ko bëggee gis da ngay ñëw fii ci Fadia am naa ci loo xamante ni man rek maa ko am fii ci Fadia Shop la montre bàyyiwuma dara muy Hublot muy Diesel muy Montblanc montre loo ci bëgg ci marque classe loo xam da ngay jénn am na fii ci Fajaasu kat yi jean chemise lacoste t-shirt body lépp loo ci bëgg a am da ñëw fii ci Fajaasu du ma fàtte tamit ja jaquette yi cuir blancheur yi spencer yi fii nga koy amee du fenn fu dul fii ci Fadia Shop Fadia Shop boo bëggee xam Fadia Shop fan la nekk da ngay ñëw ba case ba après station Shell bi ci pharmacie Ndingala bi nga boo nu bëggee jot da ngay def 77 342 96 38 wala nga def 180 65 54 numéro yooyu boo ci woowee di nga ci jot waa Fadia Shop boo ñëwee dinañ la teeru teral la tagal la wan la sunu produits yi nga xamante ni yéen doo nga ko tax a jóg te ci décembre bi boo bëggee xam fan lay neexee da ngay ñëw fii ci Fadia lingeer bëgg naa fasal nga ma samay bu mu xol jarabiyo su ma la xamul woon daf lay lingeer bëgg naa la sama lingeer bëgg naa fasal nga ma samay bu mu xol jarabiyo su ma la xamul woon daf lay doon xol yi jëm nga gëdd jaay ma jikko geng sa sometime nga bekkatu ma ñu àndandoo di Ami Jara <laughs> gis nga doxantu woon ba sama koñ. waaw sa turandoo Mouhamed. Mhm. je pense que yow foofu da nga fay faral di jaar da nga fay mhm. dem. dëgg la donc euh, comme li mu wax léegi lépp lu jëm ci bagage góor da koy jaay muy montre lunettes des jaquettes des ensemble costumes chemise euh, lépp lu góor bëgg voilà boo fa demee da nga ko fay nga ko fay am donc euh, ku bëgg bokk ci rubrique bi mën nañ continuer di woote au 77 417 52 51 donc Momo loolu laa indi woon tey ci rubrique ku la solal tey du ma mën doxantu nag Aïcha merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Ami Diana ñu ngi jaajëfal aussi waa Fadia Shop à présent parlons de l'événement le 28 événement bi euh, jege si na à deux jours de l' événement lan la ñu mën a xaar ci le 28 incha allah.